aywa ah, kon gaa yi ñu ngi ci jawaayiru sayil ci wëlu yàlla yi nga xamante ni jàlloon nañ ñoom ñëpp am problème ñu ngi ci ba lim nañ ci fukk ak juróom benn yoo xam ne dégg ngeen seen problème yi ah fukk ak juróom-ñett kon ah waaw ñi ci kaas foofu albas ci paas ñu ñi ngoon ci sëriñ si nga xam ne wala yi nga xamante ni amoon nañ problème ak seen waa dëkk ak waa seen euh, buur ba mm-hmm. ci buur jullit yi ba lim nañ ci fukk ak juróom-ñett mm-hmm. ñu continuer wa axrajoo génn nañ ba tey abal qasim mm-hmm. euh, al bahrabaasi fañ ko lañ ko génnee minal basara basara la nekkoon moom itam dafa nekkoon nit ku baax a gars yi nag mënatuñ koo e, dékku ñu ne kii nag moom mënatuñ koo nekk moom ci dëkk bi nañ ko génne waa aba abdullahi ak abal abdullahi moom it génn ko saahibu abu abi habsi alhadaat mooy xandoo abil habsi alhadaat moom it noonu lañ ko def wasa yi seet nañ xala abil hasan albasri yi abi hasan albasri yi moom it seet nañ ci lan bil ku fi ne xiifiir la war tak da nga am wax nañ fi ibnu samxoon ci ku ñu wax ibnu samxoon moom it wax nañ ci moom Euh, lu ñu wax ci moom bi kàllaami wax alfaay su ñaaw xaata maata bam dee falam yahduroo teewuñ loo ñu ko janaasatan bañ araamal sax fekk fuñ ko robee <laughs> moom kooku moom kooku la ilaha illa allah cey la ilaha illa allah ah euh, ibnu sam sam xoon la woon ah moo wax nañ ba tey fil imam abal qasim mm-hmm. ci ku imam abal qasim mm-hmm. ba tay momit wax nañ ci mom ay wax yu rafetul mm-hmm. uh, abal qasim ibnu jumayli wax na ci mom bil xasaay yu reuy de ko wax lu ñaaw ñaaw ñaaw ila an mata bam de waye nak walam yatasalsala yingul xamaa fii lam nekkoon minal istiqaali soxloo beneen mi xam-xam mm-hmm. war xadis ak xadis yonent bi wa siyaami dëhëri ak mu dëkke xoor guddeeg bëccëg mm-hmm. maanaam xoor bëccëg kon ah, bi maanaam wa xiyaami lili ak taxa guddi mm-hmm. wa suud yi ak nam xeeboon fi dunaa ci àddina xataa labisa ba mu daan xool sax albasira basang ay lalu basang yii daal na ko oddoo àggoon na foofu ci dëddu àddina ah, moom ah, kookule Euh, aba qasim ah wax naa aboubacar samtaan yi kan abo dinaar yahutu daan sippi alal di waxaala róoy mi waala sonoon ak sonoon ibnu ataay laay waala masaayiki iraq ak ñi nga xam mooy sëriñu iraq yi ñoom yëpp daf leen daan man daf leen daan saboté moom mi nga xamante ni mooy aba bak abo bakar sam euh, samt yi ah daf leen daan sippi maanaam daf leen daan saboté ah sëriñ iraq yëpp waakaan nekkoon na isa sama mu déggoon waxee dañ kenn yëskuru mu tudd leen yëqi dafay mer ah wa taqayra mu daadee karkarama dafay sant daal di sance mooy tey loolu lañ fexe dugal ko ci suñu xale yi tey soo tuddee benn sëriñ bu mag rek ci sëriñ benn wàllu yi rek dañuy mer ñoom foofu lañ ko àgg ah yal nañu yàlla musal eh, ci eh, ñoom dëgg-dëgg yàlla man daal li damay jaaxal daal eh, nit ñi njëkk ña ak ñu mujj ñi weddi bu njëkk ak ñu weddi woon ñu mujj niñ niroo لي الله رك تسابار قلوبهم سين قل يا نيرو موي ني تاي تاي امنا ньо خامني بو تودون شيخ تيجاني ولا غن سين بامبو ولا غن الحاج مال سين كرم سير كر كر دو في سخر باغ واخرج جوجن نان باتاي ابال حسن الشاسلي من المغرب الى مصر ورمو ني ساندكو بيساندقا نان سندخ لا wal ilhaad ak dafa dëng wataal yi mu dafa dagana lu xaram lii de am na waqataloo rey nañ ba tey al imam abal qasim ibnu qasi ah, moom itam rey nañ ko lu tax ñu rey ko ah xanaa woote rek fa gaa yi jàll eh, li eh, yàlla yi jaro wam na xayaan moom it rayoon nañ ko moom Ibnu Xayaan ah lu tax ñu rayoon ko liñ ray mbokkam wël joon yi ak joon yi moom it rayoon nañ ko lu tax ñu ray ko lañu rey mbokkam wal marjaan yi ak ko wax moom it rey nañ ko lu tax ñu rey ko lañu reyoon ay mbokkam wamaa saaloo joxuñ ñoom weddikat yi yunkiruna weddi ala ibnu arab alhatimi ibnu arab hatimi nga xam ne moo te liggéeyu téere bu rëy boobu marson jog da ko weddi wam nu faarit ak ibnu faarit moom itam eh, ibnu faarit dañ ko weddi ilaa waxti naa ba suñu waxtu xaasa bii kon nag wax naa ñaar fukki wël yu ak juróom ñeent juróom-ñett yu ñoo xam ne dañ leen rey ak ñaar ño xamne moy ibnu arabi hatimi mhm. ak euh, fa ibnu fa ibnu farid mhm. kon man na la wax na man na ma 30 waliyu yo xam ne ñëpp dañ leen wa qado fason nañ mhm. xalaay si ibnu abdul Salam, may li sen jotaay boko ko rek na fasal nañ ko jotaay bi maanaam borom xam-xam yi dañoo dajje complot pour daane ko ñu okk mu ñëw ci ndax lan fi kalimatin ci baat xaalaxaa boo xam ne wax na ko fil haqaa'id yi ci pas-pas yi ah loolu day amoon na e, e, ki nga xamante ni mooy ki nga xamante ni mooy damaa bëgg yi ma def ko ñu xam yi nga xamante ni ñoom lañ dàq xëy mm-hmm. diin ibnu abdullahi asalaam moom it baat bi waxoon ci affaire xaqa rek taxoon na gars yi daloon waxasadoo xañaane woon nañ taqiyu diin ibnu laysi al ahasu ki nga xamante nii ku tedd la war sa waroo ñu sosal ay duur xaalicum kàllaa man ay wax fi sultaan ci sultaan ba mm-hmm. ñu jam jël sos ay wax ne ko yow de ah yëguloo li xew ci buur bi de mm-hmm. ci Ibnu si Ibnu si mii mi ngi yàq dëkk bi de ah la muy wax daal kenn du ko wax mm-hmm. dégg nga xaataa xama baytoo bi xadli rey ko su warta dara koo dabaatal ko allah yàlla taala yàlla dabaatal ko ba tax na reyuñ ko waaye dañ ko paren pour rey ko waqaala wax na ak suyoti yu suyoti yu moom mi woon na ñi nga xam ne man nag kaw na allah yàlla taala alay ci moom mm-hmm. ah, bii mm-hmm. bokk na ci ñaa xamante ni yàlla xewal na am mm-hmm. na xoone moom aqaama sax li ñel ma àddu woon noonu yu sii boo xam ne daal na lor moom suyoti yu ah yàlla saxal na am noon boo xam ne daf may lor wuyu ma si ko muy xotti xeet sama der di yàq sama der man su moom man suyut yi ah, lii amoon na ci suyut yi ah lu mu def waa waa xar xeet eh, li tàkku na pour nekk lii ñel ma ah, uswatul ak roy yàlla nag dafa nar ma roy ah, kon nag suyut yi moom reyuñ ko de waaye natt bu dee dalal na ko waaye nag da ko muñ pour rey rek mm-hmm. ñi nga xamante ni lu leen daloon nu rek dañ koy muñ mm-hmm. ah, mu ne moom naa muñ pour rey leen mm-hmm. waxlam xamal mbir mi kaana masut nekk kabirun gu mag fikk ci benn jamono illaa kaana lu nekk na loo ñeen ko xadun doon xam ne ñàkk fayda yi dégg loolu laa la bëgg xamale ci gàttal kilifa gu mat kilifa ci diine ji masul nekk ci su euh, dëkk lu ma ñaa xam ne dañoo suufee xamoon lu bon maanaam ñu bon nii rek mooy ñàkk fayda rek ah dañ koy noonu is ndax al asraafu ñu ñoo ne ñoom la yàlla tànn lam tasal du jóg tub talaata la nattu biir atraaf yi xam ne du ay duñ ay nit dara bu ne atraaf mooy nitu pegg rek mooy nit koo xam ne nitu dara ku foor il faut ku foor di da nga maam ñun tokk ci waqaa nekk na Seydi Abal Hasan Seydi Abal Hasan radiyallahu anhu euh, taala anhu yaqulu dax na lama alima ba xamee alaw yàlla xasa not na wa jàlla yàlla ba mu xamee maa li nga xam ne sa yu xal dañ ko wax fi haasi taifati muy kuréelu wali yii alamaa ci la nga xam ne sabaqa jiddu bi coom xelmul qadim ca xam-xamu bu njëkk la yàlla xamoon ah badaa la tàmbalee subhaanahu setna wa taala bi naf ci boppam yàlla commencé ci boppam léegi nag fu mu tàmbalee ci boppam faqada mu dogal nag xalaa xawmi ci nit ñi axarada de woon gannaaw xanam ci moom bi sa ak texeet yi yàlla ñu ñi ko wax mooy yàlla dañoo njoñ loxo yaat yàlla dafa am jabarak yàlla dafa am doom mu ne ndem nag gannaaw xamoon naa ne sama gars yi fii lañ jëm ñoom itam man maa ci njëkk kon nag ñi yàlla nga xam ñi nga xam ne ñoom dañ yàlla dogal ci ñi nga xam ne fa qada ala qawmin arada anhum yàlla dogal ci ñi nga xam ne ñoo woon gannaaw wël lu mu dogal coom bi saqaay ak takat yàlla nu ci yàlla musal fa nasaboo ñu askan loo ñël ko mm-hmm. lu ñu askan yàlla sawjatan jabar mm-hmm. wa waladan ak doom mm-hmm. wa faqran ak ñàkk ni ma ko waxee yàlla de lii liñ ko askane yàqalu ko dara ci yàlla am nga wa jaxaloo def nañ ko maxloolal yëdee nii muy koo xam ne dañoo njoñ ñaar loxoom njoñ foo ko diggee mooy ñaar loxo rek boole ko yeewaale ko ak ceen sa doq yi ah fa isaa daaxaa bu xati na sarxul wali yi xol wali yu wa siddiq wala koo xam ne ko dëggal la suñ ko defee lii ba xolam xat li aj li kàllaami ndax wax kii la koo xam ne wax lañ ko fii ci moom ndax wax juñ ko wax rek tax xotom de xolam di xat dina xare min kufri ñu ne ko xéeféer nga wa sandaqatum wala kàccoor nga wa séerin wala ñu ne ko njabar la jàpp wajjuloon wala jinne ko jàpp wa xayri saalika ak loolu loolu taa yoo xam ne askanee nañ ko nitu yàlla naaratu daf koy xoo xawaatiful xaq yi téléphone dëgg téléphone dëgg xam nga ñoom ni ñuy waxee téléphone téléphone moom pays bi moo su ñàkk téléphone gis nga fi mu sa siru bii moo korosante ak sa sa aadiyatu bi lu xew rek aadiyatu rek jox ko information rek siri moom dal ko jox li nga xamante ni mooy ah waa ji ñuy waxat ah taala téléphone ba ko alasi nga xamante ni xiila fii ka ñu ne ko alasi li nga xam ne xiila fii ka eh yow lii sa mbokk yi wax ci yow huwa loolu was fakk sa mel la li la wax yow noonu nga mel law laa fadli bu taxaloon sama baaxee aleka ci yow kon li la waxee ne xéeféer nga nga doon xéeféer maa la baaxee ba doo xéeféer maa la baaxee ba nekkuloo dof ama tara xanaa gisuloo ixwaan ak sa mbokk yi mm-hmm. min ba ni aadam ci doomi aadama yi mm-hmm. kay fa waqaxoo naka ñu tab naka ñu dalee mm-hmm. fi jaanaa bi sama côté xanaa xool sa mbokki doomu aadama yi li ma dalee sama kaw war na sa boo ilay ñu askane ci man maa loo xam ne laa yéen mbaqi jaadu ñu askane loo xam ne naan dama wax naan am na jabar ak doom ak amul dara sa mbokk yi day yow ñëw ñoo man nag amuy mbokk Ah, fa in lam yansari téléphone bu dikkee lii lay téléphoné wax ko lii wala siddiq bi téléphone naa ko wax loolu di ko déglu ba xam dana fiix wala du fiix fa in lam yansari bu fekkante ni xolam ci dékku li maa xiila fii ndax lañ wax ci moom bal in xabada dafa rasuwaat au lieu bi fi dékku xolam bi rasu rek نارا نو داف كاي وات خوات فلاقي تليفون دك با ارين باتاي نكو اما سالك ا نده نيك لولو شي تي مان اسوتن مالات نده منو روتي مان ياو دو روتي مان فقر كلا واخ نان في تي مان ما لو خم نتي لا يلق لا يلق جارول bi jalalé sama foray bi lu jaadul ci son foray wax na ko ci man وقيل لي وقيل وقرن في محمد صلى الله عليه وسلم وفي إخوان أي مبقى من الأنبياء أيون نيسلوي ورسول أيون تي وأنا نتي وقى وقنا ما يقمن لا يلقى جار بمرتبة سن سن مرتبة من سيرنا محمد نكون جبر ولا يون تي جبر وجنين ولا كي جنين كجابو lol waxon nañ askane ni ma la nga degon ci man ak liñ wax ci yonenti wa anahum ñu ne ñom laa yuriduuna namuñ bi daawaam seen rotuba ilaa riyaasata bëgg ku leen fal dong moo tax nga dikk naan yàllaa ma yónni yàllaa ma yónni waaye doo ko faloo de yow mënoo roy ci ñaar ñii xanaa yonent yàlla yàlla ak yonent bi mën ko wax naa man Ibrahima Niass nag ah, léegi nag balaa ñoo bàyyi ki xamante ni moom lan bi dañ ko téléphoné ba mu ne waaw kon baax naa ko mm-hmm. man nee naa woptu lee nat nattu nañ al cheikh al xadmi al tijaani yi cheikh mi nga xam ne mooy xadmi tijaani radiyallahu anhu mm-hmm. ah, bi mm-hmm. mm-hmm. moom nga déggoon ki nga xamante ne moom la bàyyi xalifa tontoon noonu ah, moom nga dégg baraam jëm mu ne jamono boobu bàyyi ngay dem màkk ah, léegi mu bàyyi mu ne boobu bàyyi bëgg na ko boobu waa waa waa waa maanaam waxabi di yàkkam na ko di ko yow tijaan nga yow nangam nangam mu ne bàyyi moom yàkkam na ko ko ci dal rek ñu ne ko yow ci loo ñëwee mu ne ci si ñu ne waxuñ la loolu gaal ko maanaam gaal nga ñëw wala la <laughs> <laughs> dégg nga faqad euh, alafa taalif na kitaaban téere masonatan boo xam ne dañ koo feesal bisabihi ci xas Cheikh Tidiane wal iftiraay ak sos xale ci moom wala anahoo mu rëbb Cheikh Tidiane ah wala xani yi ak rëbb Cheikh Tidiane wa takfir yi ak kéefiloo Cheikh Tidiane wa tadlil yi ak réerloo Cheikh Tidiane foo moom wa ashaabi ak képp ko ànd ak Cheikh Tidiane radi yàlla gërëm ala yoo xam ne coom moo tax ba tey fi may waxee yow nii yow daal lu la nit bëgg-bëgg ci ñoom suñ ne kii Tijaan la ñoom ilim eh, seen ilimaan mooy ibnu maayaba ak ñi dikk gannaawam lañ lay xoole rek tijaan daal gannaaw doon na ko rek bu nit ku baax ah, wama xamala yenul jàllaamidatul fuqaha ak loo xam ne wama ak loo xam ne xamala teg na ko jàllaamidatul fuqaha yi nga xam ne ñooy ponkali ñu dégg xaalal inkaar yi nga xamante ni ñooy weddikat yi xaalal asfiya yi lu ma ko danga ko nañ ko firi firi ndax kon wamaa xamala masta teg jàllaamil fuqaa yi maanaam ponkali fuqaaw yi xaalal inkaar yi xaalal asfiya ñi nga xam ne ñooy nit ñu set ñi ñoom ponkali fuqaaw yi masuñoo jël ay eh, fen de ko teg ci deri ñi yàlla setal ilal xasad lu ma xeexaan moo leen ko teg dara tegul leen ñu leen di weddi xanaa añaane waaye nga gis koo xamante ni xam nga moo tax fuqaawu yi jang mo xamne ne marifa, el fo borom da fay añan ndax reer gem gis mu gis ah ki mako daka jang mm-hmm. ah te man ken teralu ma kii moom jàngul ñu koy teral mm-hmm. ah lol nak mom taxna mom mbir mi dade salfaño mom mm-hmm. la wama hamala tegut jol jala jala miridul datul hal inkari alal asya ila al hasan dumay ñan dong motax dara tegul leen ñoom ñuy weddi ñun nit yàlla yi lu may eñaan waqat wax naa alxalaamatu mooy kan la saroqi saroqi kama fi tasir xawaayit la téere mu nekk téere tasir xawaayit maa loo xam ne nasuhoo mu ne maana alxasad luy maanaam kañaane yar joxoon dafay dellu li mudaafatin de gën a multiplier wu moom añaan ndaxte taa yoo xamante ni gis nga ka ngay añaane loo ko añaane muy gën a avancé sa añaane gën a gën a avancé waat mm-hmm. ah, wa maqsadul xaasidi jubluwaayu ku lay añaane mm-hmm. illaa fu aynil maxsuudi mm-hmm. sànkoog jëm ak kam xañaane xale ci moom minasad yi ndax añaane ko moom daal balaa xoloma sedd mu yëg ne kam añaane woon sànku na mm-hmm. ah loolu mooy bëgg-bëggu añaanekat mm-hmm. wa isa kaanat bu nekkee mm-hmm. alfadailu ngëneel fi nu ci bakkan kaan dafay nekk alxasar euh, añaane fi ahyaaniha seen jëm ya moom bu fekkente ni ngëneel dafa nekk ci bakkan ah ñoom itam ñu jël seen kañaan def ko seen jëm ya wala seen bët ya mm-hmm. bi maanaa ña koy xool borom nga ne la koy xool mm-hmm. ca bakkan yaa xam ne yàlla def leen defal ngënal mm-hmm. wal amal ak jëfandikoo fi idlaa fiha pour sànku ak lan dañuy taxaw nag pour fexe lu sànk waa ju nga xamante ni moo taxaw seen kanam ak ngëneel waa min sanama foofa nag ixtalafa la uute axraadul xaasidina ah soxlaa ñi nga xam ne ñoo añaane ñi añaane ñañ añaane dañu uti ña leen añaane ndax kii lam nga ne lam am mooy taar kii nga ne lam am mooy alal kii nga ne lam am nangam nangam moo tax añaani kat yi xam nga mbër mu mbër mu dàqaa bëri ñi nga xam ne moo leen dàqaa bëri dañ koy añaane mën a bëri gi loolu lañ nag moom moo tax dañu uti kon nag wa maqasidum ak seen jubluwaay fala yén sabu du askane xaasin ko añaan mhm. ah, li amatin ci am mhm. limis li ku mel na moom mhm. fi sooq ci marché boo demee ñaar ñoo xam ne ñoo lal ci marché ah député mbagg xamuñ sax luñ fuñ fuñ la fuñ téye ñoom duñ xañaanante waaye yow su fekkoon ci yaag sa morom yeneen nekkoon fii nga am magasin boo xam ne ma nga ne tepp te sa morom romba la fi dégg nga maam yow biti baa nga fees mu añaane sa bitig ba ndax moom bitig mbagg la kon nag mu ne kon nag koo xam ne ku néew la du nekk koo xam ne añaane ku néew la mooy xam li ci sooqi mm-hmm. wanaar yi naw yu ak ko moom mm-hmm. dañuy di ko wuruj mm-hmm. wal ak ko jaxase wanaw yi ne ko noonu ah, wala xaasida eh, wala xaasidu jundin amul kuy añaane soldaar ilaa damu ihtiraami lu ma ñàkka xormal ko bi maanaa daal boo xañaane ah, kuñ ne kilifa la bi maanaa mooy soldaar naka tey ab colonel mooy ñàkk ko ormal wa qillatul yi ak néewe taxaw bi xuquuqi ci ay waram soldaar daal boo xamante ni mooy kilifa la lan ko nit da mën a añaane mooy ñàkk ormal ak ñàkk taxaw ci la koor war na wi ak lu mel naka noonu wala xaasada xañaanul alfuqaa wal quraa ñoom ñi xam ne ñoo jàng fiq ak ñi jàng mooy ñi nga xam ne mooy ñoom dañ jàng alquran ñoom yëdiwuñ illaal kufra lu mooy kufra moo leen dal war dara agre ne dong moo leen dal moo tax ñu di nit yàlla yi war na woo ak lu mel noonu lutax li yadli fa pour sànku rek saatoo jëmum woo fadilatoo ak ngëneelam ki dal liñ bëgg mo sanko ak lim al mustadamatu bi xamanteni sax bi dawa ma ñuy ot lo xamanteni ni yadlu fa daf koy sànk yustadamu wala ñu dal ci kom faddu ko wala al fuqaha al fuqara ñom ñi amul manam miskini hanyanu ilaa wujudatihi lii lu mooy am ak pexe wal muqaadaati ak war ku ñàkk kam añaane amul lu mu ca du ko amal ay pexe wala da ko or wa annahu naka moom saahibu naamuus maanaa borom sekk nañ wa annahu ak naka noonu ilaa kaysan day dem naan ah sawaa ji de alalam ji ndax li tax ma am ko nangam nangam borom sekk na war nanga noonu ilaa saalika ah. mi maa loo xam ne yettoolu dafay gudd si kurootu dam kon na fafam naka dégg waxaa saa fi nag aaxir fas li mooy mujj ak fas bi nga xam ne mu laax ci affaire gis bu ak borom nit yàlla yi li leen di dal walaaw yàlla subhaanahu almuwafiq mooy may saas li saa bi njub boo ilay ca moom subhaanahu almarjom wal maab kon ñu def kii boobu ñu defaat beneen bunt